jaa ngeen jëfati mbokk yi way ànd ak ñun seetaan déglu seen cabinet bio rahma ñëw rek indil leen benn faculté koo xam ni dafa lay dimbali protéger sa système immunitaire ndax suñu borom daf ñu bind bindu noo xam ni dafa sukkandiku ci nattukaay suñu borom dafit leneen loo xam ni saa su rek daf ñuy sàmm di ñu aar di ñu musal ci lépp loo xam ni dafay dugg ci cër wi moom it liggéeyam mooy dàq loolu xeex ak loolu ba loolee tamit su duggee sax mu xeex moom ba daan ko loolee nag mu am ci ay meññeef yoo xam ni daanaka rek suñu borom def na ko ci te soo ko dajalee di ko jëfandikoo suñu borom mën na laa dimbali musal la ci lépp loo xam ne ay tooke la ca loolee mbokk yi moo waral ñu indi leen seen sirop antivirus. muy composition boo xam ne dafa nag ak miel gingembre citron cannelle ak li nga xam ne moom moo di girofle te xam ngeen ni yëpp lu ci nekk rek daanaka rek principe actif ca nekk mooy bëmax mooy xeex mooy buux. mooy musal la ci bépp loo xam ni dafay jëm ci wàllu tooke kon mbokk mi recherche bu waaye dafay baax nag ngay jëfandikoo loo xam ni dafay renforcer sa système immunitaire ndax ki sonn ki mu sonal mooy ki système immunitaire di nelaw kon renforcer sa système immunitaire ak biorahma antivirus bi nga xam ne daanaka rek njëg gi yomb na lool ngir ñu may mbokk